asalaamaaleykum euh, mbokk déglukat yi ñu ngi leen sant si déglu ñu ngi leen di déglu te yii di altine yamoo ak juróom-ñeenti fan ci yow euh, euh, yi ndax rubrique bi mi ngi dem ci mbirum ndekkil ñi nga xamante ne ñoom ñooy xale yi. docteur lan moo tax mu am solo élèves yi wax di ndékki xam nga ndékki yi dafa nekk euh, lekk boo xam ne repas boo xam ne dafa am solo ci ñëpp parce que ñëpp xam nañu bu ñuy nalaw dañuy woor mhm. donc guddi gi yëpp kenn lekkul boo xëy nit ki su xëyee war na am lu mu jox yaramam ndax yaramam mën a démarrer fonctionner normalement euh, am énergie daal ñuy wax énergie essence maanaam comme essence bi ñuy def ci suñu suñu oto yi wala suñu mobile ak ci ainsi de suite mhm. euh, donc euh, pour ñëpp la am importance pour xale yi pour xale boo xam ne dafay dem jàngi mhm. dafa gën a am solo parce que xale boobu loolu muy jël di ko lekk daf koy may daf koy may xel Euh, gis nañu ni dina ko may énergie daf koy may xel aussi pour mën a gën a jàng euh, ay am na gëstu yu bari ñu def ci wàllu science ñu won ñu ni euh, xale yi nga xamante ne ñoom lañuy xëy bu ñu nekki dem noonu jàngi ñooñu xale seen concentration dafay dafay néew par rapport ak xale yi nga xam ne nekki nañu mm-hmm. seen seen aussi seen capacité maanaam jàpp information yi mémoriser ku pactoriser comme ni ñuy wax. waaw dafay wàññeeku. Mhm. seen seen concentration moom aussi dafay wàññeeku. Mhm. ba nga xam ne daal euh, ñu ne xale buy dem jàngi euh, war na war na ndékki am na am na solo loolu mhm. ci euh, jàngam. waaw wax nga ko léegi suñuy nelaw suñu yaram dafay woox defe naa mën nga wax donc suñu yeewoo dafa am nañ ci wax a def xale dafa war a lekk wax nga ko mais du xale lépp la war a ndékki quand ñaata tam nga koy jox ngir mu ndekki ndekki bi gën. waaw xale ak mag yëpp yëpp yem euh, xam nañu daal xale bi euh, moom li muy li muy lekk dafa war a équilibré maanaam dafa dañ ko war a yemale. Euh, amul lekk boo xam ne dafa spécial pour xale. Mm-hmm. comme xam naa bu ñuy seetaan publicité yi nag seen télé dañuy dem ba defe ne nii am na daal ay façon lekk yoo xam ne pour xale kese la uh-huh. euh, parce que ñoom ñoo war a lekk chocolat yi wala di lekk yu bari saf bari suukar yi bari graisse yi uh-huh. loolu pour xale la euh, loolu amul ñu ni ci science nutrition li ñu xam mooy ne uh-huh. xale dafa war a lekk lekk bu sell lekk bu équilibré la plupart du temps ci xale sax la gën a am importance parce que xale boobu habitude yi ñu koy jox ni mu lekkee xale noonu moom lay màggaale donc sa doom sax ci nga war a gën farlu euh, insister ci habitude yu baax yi di ko tamal lu baax dès le départ mhm. ñii yaree suñu doom yi di leen jox ay neneen doon oh, sàcc baaxul euh, fen baaxul et cetera noonu lañ leen war a yaree ci lekk bu baax yi baax ak yi nga xamante ne mhm. des na baax daal disons wala en tout cas waruñu ci dëkk donc xale bi xale yi dañu war a lekk lu équilibré d' accord seen ndékki kon lan moo ci wax nag alors ndékki boobu comme ni ma ko doon waxee temps yële ci ndékki mag yi war na am am na solo mu am déjà loo xamante ne ñangu pekk la comme ñuy wax céréale ci nasaraan mhm. euh, li ci gën a en li ci gën a yomb mooy mburu euh, mhm. lu mel ni mburu mburu moomu nag euh, warul nekk ku jël mburu waxuñu pain au lait wala pain ay pain brioché wala mhm. pain de mie loolu mburu mburu moo xam ne dafa am dafa am beurre am suukar dootul mburu Mm. loolu pâtisserie la loolu <laughs> xeetu viennoiserie la mais du mburu mburu bi ñuy wax mooy daal mburu bi ñu jënd nii ci boutique bi wala kiosque bi mburu simple la boo xam ne dañuy jël farine def ci ndox def ci levure def ci xorom dugal ko ci four bi mu ñor mm-hmm. dara raxu ci loolu mburu moom la xale bi war a lekk la plupart du temps ah si léegi nag accompagnement yi loolu beneen wax la léegi nag accompagnement yooyu mooy ni nit mën na choisir fromage jël fromage def ci jaay ñu ci boutique yi mm-hmm. wala ñu def ci ñu def ci thon wala ñu def ci beurre wala mm-hmm. mën nañu taamu aussi euh, loo xam ne dama koy souvent dama koy conseillé parce que ñëpp xam nañu am loolu ah. mooy desitu di der ba ndekki waaw ndekki soos xëy parfois dañu may tooñ géyi géyéen yi di ma tooñ naan ma waaw da nga bëgg rekk parce que da da ngay conseillé nit ki sos mm-hmm. mais en fait euh, li reste bi diine li desoon ci ci reer bi c'est euh, lu lu mën na baax bu fekkee ni daal bariwul woon nii ñu woon loolu mm-hmm. yooyu yëpp mën na ànd ci nekki di léegi wax nga lépp te tudd la chocolat docteur justement chocolat dama koy def ci yi nga xam ne lekk yooyu nga xam ne ñu defee ne xale yi moom lañ leen war a jox mm-hmm. alors que kenn waru leen koy dëkk ci di leen ko jox mën nañu wax de temps en temps ñu génne potu chocolat bi ne ñëpp lekk chocolat xale ak mag sax lekk chocolat mhm. euh, mais warul nekk tous les jours parce que li ma doon wax mooy ci ñelbeen bi mooy ndekki bi warul bari suukar warul bari graisse. te chocolat beurre beurre ci bopp. beurre baax na parce que beurre en fait am na graisse dëgg la mais amul suukar donc dañuy essayer te même beurre même ci accompagnement yi ma wax ne baax na noonu am na ñu gën yenn yi par exemple fromage bi mooy gën beurre bi. donc di lekk beurre fromage tous les jours moo gën a am solo que di lekk beurre tous les jours. parce que fromage bu ci boutique bi nga wax. fromage boutique bi wala yeneen fromage. Mhm. na fromage yu ñu gën mën jënd ci boutique yi fromage yoo xam ne dañ koy jënd ci supermarché yi am na sax fromage yoo xam ne dañ koy defaral suñu bopp dañ koy defar fii Sénégal mhm. mu nekk ay fromage chèvre pare bu ñuy jaay nii fii euh, pas loin de Dakar. Mhm. Euh, donc ko xeetu fromage daal mën nañ ko def ci mburu mu xale mi mu yóbba mu mu mu ndekkee ko. Euh, li nga xam ne dañ ko war a wàññi mooy loo xam ne dafa bari suukar wala bari graisse wala ñaar yëpp comme chocolat. Mhm. mais waxuñu ñu éliminer ko mais dañu warul bañ a dëkk ci di ko jox xale. ñetteel bi mooy euh, xeetu euh, kii li ñuy wax produit laitier xeetu meew. Euh, loolu dañ ko dañ ko taamu parce que dafa am lu ñuy wax calcium calcium bi képp képp xam ne ni dafa baax ci euh, yaxu xale bi sa xale dafay màgg te kuy màgg soxla nga looy dëgëral sa yàq donc calcium boobu day dëgëral yàq mm-hmm. am na protéine loolu tam dafay defar yaram euh, dañ yooyu yëpp baax na ci xale bi mu nekk mu na nekk meew wala mu nekk soow wala mu nekk yaourt mais xeet loolu daal am na solo ci mm-hmm. ndekki boobu li ko mujjeel mooy fii et fruit boobu euh, damay faral toujours di rappeler suñu auditeurs yi ne fruit du fruit importé yi rek mhm. ay pomme orange banane euh, ñun suñu suñu fruit yi aussi suñuy takku sëddeen yi ak euh, suñu takku solom yaag suñu sump yaag yooyu yëpp ay fii la korosol yi selon les saisons màgg yooyu yëpp ay fii te loolu war na bokk ci ndékki xale bi loolu yëpp suñ ko boolee mu nekk benn ndékki benn petit déjeuner boo xam ne dafa yem dañ ko yemee dafa équilibré parce que lépp ngi ci pour que xale boobu mën a am xel mu jàngee ba noppi retenir bi muy jàng bu demee jàngi noonu ci suba boo xam ne moo gën a concret docteur pour ndékki ci du ci dugal nañ simple simple mën nañ jël suñu lait en def ci benn morceau suukar mhm. euh, vraiment c'est l'occasion d'ailleurs tamal xale yi ñu bañ a suukar lu bari euh, jël pain def ci mburu simple def ci fromage fromage wala def ci thon mhm. jël taw ji melon yi bari nañ te neex nañu te melon locaux la euh, benn daggati melon loolu mooy ndékki balaa ndékki boo xam ne bu simple la su fekkoon ni beneen exemple su fekkoon ni dañu toggoon benn benn sauce fiiriir la veille nañ jël mburu def ci ci jën bu ñu xaw a haché noonu jël jël encore benn yaourt ak benn orange mu nekk benn ndékki bu complet pour xale bi et benn bu nourrisson aussi d'accord mais yenn saa yi docteur nga gis ci xale yoo xamante ne ñoom ci seen bopp ñu dul bëgg lekk ndax suñu bëggul lekk dañ leen wax forcé alors il faut surtout pas forcer xale bi buggul lekk surtout ci suba si déjà am na mag yu bari yoo xam ne bugguñu teel a teel ndékki parce que nit ñi sax euh, di nga yeewu maanaam doo doo bëgg a lekk parce que amoo appétit heure boobu mhm. euh, dafay dal xale yi mais danoon ni muy conseillé suñu parents yi ñuy déglu mooy ne xale boo bëggee mu lekk da toog nga lekk moom mhm. donc su fekkee ni euh, il y a plus de chances que xale bi bëgg ndekki su fekkee di parent papaam yaayam toog nañu ñoom ci seen bopp di ndekki mm-hmm. daf leen di encouragé ci repas boobu mm-hmm. mais même bu fekkee ni même bu parent yi toogee te xale bi bëggul lekk kenn du forcé kenn mu lekk mm-hmm. parce que lekk dafa am loo dafa nekk loo xam ne plaisir la war a doon bànneex donc doo jël lekk repas boobu moo xam ne xale bi dafa am bànneex ñu ko ciy forcé di ko def lu di ko mettital kon mooy ñu dellu si li ñu wax lekk en pleine conscience. lekk en pleine conscience lekk ak plaisir. Mhm. su ko defee bu fekkee ni xale bi vraiment mënul lekk heure boobu euh, li may conseillé en général mooy au moins ñu jox ko fruit. Mhm. parce que fruit boobu dafay am suukar dafay am vitamine su ko defee loolu mooy nekk lekk ci euh, mooy nourrir yóoram. Mhm. nga xam ne su demee dina mën a dina mën a concentré normalement. li ci des ci lekk bi mu jël ko def ko emballé ko mu jubbale ko école. su demee ñëpp am nañu xale yëpp dañu am récréation ay booru 10 bu récréation bi jotee mu lekk li ci def ci ndékki bi te loolu avantage bi mooy xale bi ñu dem ba école di jëndi li muy lekk foofu mhm. parce que euh, lekku école bi mën na bañ a sell mën na bañ a sell ci fànn yu bari euh, déjà euh, bari suukar bari graisse wala ñaar ñëpp et puis mën na bañ a set condition euh, préparation ak conservation bi exactement donc li gën mooy une partie au moins le fruit mu jël ko kër kër ga mhm. li ci des mu yóbbaale ko mu yóbbaale ko école bu mhm. récréation jotee mu lekk li ci des ban fruit par exemple ba comme ni ñu wax n'importe quel fruit banaan yi nekk mu ngi fii orange yi ñu ngi fii li nga xam ne euh, euh, tàndarma nga xam ne mën nañ ko mën du loo xam ne day gaaw a nëpp mën nañ ci jënd boîte teg foofu mhm. te lu yomba lekk la le matin te fruit bu baax la fruit bu mu ci doon mën na ko yóbbaale même su fekkee ni ci su du ci kër gi la ko lekkee balaa muy dugg classe balaa muy dugg classe mu lekk ko mm-hmm. am na solo. Mm-hmm. docteur Bintou ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi lay fay bëggoon naa juste rappeler sur la page Facebook. Euh, dañu am une page Sud mm-hmm. boo xamante ne euh, ci la ñuy posté suñu enregistrement yi yëpp rubrique benn bu nekk dañ ko ci posté. et puis ci page bi dañuy encouragé ñëpp ñu dem ci. Euh, joxe laajte seen yi am set bu fekkee ne ñu am ay laaj ñu ko ci page bi mhm. euh, su fekkee bi aussi bëgg nañu suggérer ay thèmes yoo xam ne bëggoon nañu ñu ñu ñu tontu ci mhm. ñu ñu aborder thèmes yooyu ci suñu rubrique bi ñu wax ñu ko aussi mhm. am na ñu bari déjà yu yu dem liker aimer page bi ñu ngi encouragé ñëpp ñu ñuy déglu ñu dem seeti page bi gën koo gën koo dundal jërëjëf euh, jërëjëf docteur Bintou Cheikh Seck ñu ngi lay gërëm di la sant si rubrique bi tey jii merci Léa